ñu jukki leen li gën a fës ci biir internet bi dañu koy dooree rek ba tey ci mbiru Ousmane Sonko ñu gis ne nag demb wala ko waa section de recherche daal di koy jëlee rek daal di koy yóbbu lañ teg rek ca ndoddam nekkul lu dul trouble à l'ordre public moom lañu ko daal di rek jàppee ba dañ koy def rek en garde à vue ni kiy démb rek ci àllarba ji waaye nag kii di Ousmane Sonko ba mu janoo rek ak enquêteurs yi question yi ñu ko doon posé gis nañ rek moom nanguwu caa tontu rek benn yoon lam leen xamal rek mooy nee na day yomb torop xamal rek enquêteurs ya nangu leen rek tontu rek benn yoon ba tey rek ci mbiru Ousmane Sonko gis nañ rek tey ci alxames ji élèves nekkee nag ca diwaanu Géejawaay dañoo génn rek di amal ab manifestation ngir rek bëgg daal di libéré kii di Ousmane Sonko ni ngeen koy gisee noonu rek ci image yi noonu la demee xale yi dañoo génn rek daldi di mer ba futtu di wax rek ne dañoo bëgg ñu daal di libéré kii di Ousmane Sonko waaye noonee rek la daal xewee foofee ca Alioune Sall mi nga xamante ni rek moom nekk euh, meeru Géejawaay gis nañ nag manifestant yi dañoo daal di dem rek ca buntu këram euh, janoo ak moom rek mu mel ne daal dañoo bëgg rek daal di manifester wu ca kanamam ngir bëgg rek lii di arrestation Ousmane Sonko bi nga xamante ne bi rek daat nañ ko koy def ndiki démb ngir trouble à l'ordre public ñu daal di koy rek libéré tax rek kii di Aliou Sall nekk meeru Géejawaay en même temps tamit nekku rakku kii di président Macky Sall moom daal jamono ji këram daal manifestant yi fees nañ fa dell rek ngir daal di ci mile mbir ba tey ci mbiru Ousmane Sonko ci la ñuy daal di desani ndax gis nañ ki nga xamante ne moo di Barthélémy Dias démb bañ ko invité ci émission boobule rek di Fram Facce daat ne nag yëkkati ay kàddoom rek jëme ci arrestation kii di Ousmane Sonko ak manifestant yi démb niñ doon defee moom daal di xam le ne ñoom du ñu bàyyi rek benn yoon ndax nee na defuñu ngir Ousmane Sonko ñoom li ñuy xeex rek xam nañ ko mu di coowul troisième mandat bi moom la ñuy bañ te duñ ko nangu tey te sax nee kii di Ousmane Sonko respecté wul rek li nga xamante ne bi moo di xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bachir li ko ñaanoon rek jëm ci moom nee na moom respecté wul benn yoon promesse am jëm ci xalif bi ndax xamaloon na ko ni ko moom yëf yi du ci dara te dina ci def euh, lépp lu mën ngir bu naree indi ay coow yu ni mel waaye nee na gis benn yoon rek mu daal ci àddu nee na li mën daal def na muy génnee armée beeg li ni mel kii di Barthélémy Dias moo ko daal di wax daal ci toftalaat ba tey rek muy maire Sacré Cœur maire Mousse bi la di Barthélémy Dias lam ca toftalaat nee na Macky Sall su moytuwul mandat bi du ko sax jeexal kàddu daal moom la Barthélemy Dias daal di jeexalee ñu daal ci toftal rek euh, Abdou Mbow moom nag nee na kii di Ousmane Sonko moom mooy seul responsable dégâts yi nga xamante ne bii rek manifestant yi def nañ ko ndiki démb ndax nee na moom daal moo waral lépp li nga xamante ne bii am na ndax ba ñu ko woowee gis nañ ne policiers yi daal nañuy génn muy force de l'ordre yi daal di koy wër rek ngi daal di koy gunge waaye gis nañ nag blocage bi mu amee moom Ousmane Sonko moo arrêté otoom na a dem kon moom moo créé li nga xamante ne bii yëpp moo am euh, du samay kàddu Mbow moo daal di rek euh, ñu wéyandi rek ba tey ci mbilu Ousmane Sonko ñu gis rek vidéo bi nga xamante ni bi jamono ji ñu ngi koy partagé bu baax a baax euh, ci réseau sociaux yi mu di benn garde du kii di Ousmane Sonko la ñu jël rek gaz lacrymogène daal di koy dugal rek ci yëreem bi ngeen koy gisee noonu rek ci vidéo bi mu nekk rek loo xamante ni bi lu doy waar lu triste la mu nekk image bi nga xamante ni bi moom la ñuy gën a waxtaane euh, jamono ji ci réseaux sociaux yi mu mel ne ñu bëree bëri rek ci askan bi dañ koy naqarlu bu baax a baax mu di rek gaz lacrymogène boobee nga xamante ne bii rek dugal nañ ko ci yére yu garde corps kii di Ousmane Sonko. ñu àddu ci leneen ki nga xamante ni mu ngi dund nag jafe-jafe jamono ji rek ca prison ba nekkul kenn ku dul Guy Marius Sagna gis nañ ne nag jamono ji sax dafa entamé benn grève de la faim ngir nag dañu koo daal di simi rek ba mu set daal di koy dugal rek ci beneen prison boo xamante ni bii dafa janoo rek ak géej gi daal di koy simi ba mu set nga xamante ni bii sedd bi daal mi ngi koy rey rek jamono ji mu di ay torture yu métti métti yoo xamante ni bii kii di Guy Marius Sagna mi ngi koy dund rek foofee ca police ba ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen ki nga xamante ni moo di Guy Marius Sagna xamal nañu rek ne dafa daal di refuser nga bi war a consulter mu daal koy xool rek ndax état de santé may na ko boobule torture waaye daf leen koo bañal rek ba set wecc ba biñ ko bàyyee rek ak tubéyam jooju daf ko daal di dindi rek ba desee ab kilote ki ñu xamal rek mooy Xadijatu Njuug Fay moo ñu ko daal di xamal ne kii di Guy Marius Sagna daf leen doon traité rek li nga xamante ni moo di ay voleur ak manipulateur rek yu ni mel moom la leen doon wax rek ndax ne buñ buñ la jàppee dañ laa war a fuye ngir xool ba xam ndax yoroo dara lu nekk ci yow waaye ne na kii di Guy Marius Sagna daf ko bañoon ba tax sax muy yëkkati yenn kàddu yi di ko teg ci ñoom moo tax sax ñu daal ko yóbbu woon ngir daal di koy punir moom daal jamono ji ñuy wax ak yéen dañ koo daal di dindi rek ba mu siñ koo simmi daal ba mu set wecc mu mel ne rek mi ngi dund rek jafe-jafe bu metti foofee rek ca prison ba ñu addu ci leneen gis nañ ki nga xamante ni moo di Aram Touré nag li ma metti point com ñoo ñu ko daal di xamal ne dafa daal di rejoindre rek muy télé El Hadj Ndiaye bi di 2STV ñu gis ne nag Aram ma nga nekkoon foofee rek doon def émission bi nga xamante ni moom la ñu tuppee euh, soir d'info ba mu daal di démissionné nag moom moom nag DTV la ñu nekk jóge fa daal di ñëw TFM daal di nay démissionné nag TFM ba actuellement ñuy wax ak yéen jëm na nag fee ca 2STV ñu di ko ñaanal rek succès ci challenge bi nga xamante ni rek jëlaat na ko moom Aram Touré dañu koy daal di jeexalee rek ak naqar bu métti métti wàcc ci ki nga xamante ni moo di Yébé Niang moom moo daal di uh, ñàkk bakkanam ñu gën koo xam ci Yébé la bourgeoise moom nag nekkoon xaritu kii di uh, Jaba Sora moo daal di nag ñàkk bakkanam di ko jaale ay mbokkam te di ko ñaanal suñu borom daal di koy jéggal lii rek moo fi gënoon fës ami internet yi di dajale doon ba ëllëg ak jàmm